kanam Abdullah abdoulahat mbakke mom Aliu, aliyu mom cheikh mohamadul Mustafa di rak ci serigne cheikh aliou mbakke mi nga xamni taxawayam ci dekk bi ñu nit nañ ko waye jëm ji tok di sering Abdullah mbakke man na yëkëti kaddu ci turu mboolem jabatu serigne aliou mbakke gi yëpp ci dekk bi nga xamni seen wajuru bax wa taxaway bi mu ci amone ci liggéeyal Cheikh Moustapha liggéeyal seexul xaddi maamam taxaw dëkk bi ci lépp lu mu aajoo woon ci lu ñuy jëfandikoo rawatina nag lépp lu aju ci wàllum lu jëm ci jaamukaay yàlla moo tax barab bii nag ñu fi amal tey muy jumaa ji nga xam ni moom lañu ubbi tey julli ko fi njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñu ci bari daje fi kàdduy cant ak ngërëm yu jëm ci ñoom ak mboolem seex si ak taalibe yi dañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Aliou mu yëkkati ko bisimilah. bismillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di am mbégte ci tey jii ak ci dëkk bii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko sancoon te bi koy sañc li taxoon mu sanc ko mën naa ne mooy liggéey lu yóbbu ci jumaay Tuubaa ji moo taxoon 1939 la ko sancoon wax nañ ne bàyyi na fi junni bari go yo xamne ci jumaay tuba ji ci lako def bim ko sancee it mbollem ni ñu bax ñi nga xamne ne nekkon jarim señ bi santon leen ñu nekkon ci alquran ñom ñep bim mu dekk bi da fi indi ba na wax na sax mag ñi nañ wax ne dañ daan wax naan inal abrar la fi naxim ne nan abrar yep ñu nga daaru nañ kon tay ji bu ñëwee dafa fi defaat xew wi kon nañu sant yalla bu baax xamne sëriñ bi lam bëggoon suñu borom defal nako kon ñi ngi sant ñep ñi fi tew ñep goor jigen mag ak ndaw di len ñaax na ci wa dëkk bi ñu xamne sëriñ bi ba mi sant dëkk bi daara rek lako defal muy liggey ak jaamu yalla kon nañ lu ci liggey ak jaamu yalla ta xamne mom rek moo tax suñu borom indi ñu fi adina mu ab way rek dañ fay gànna ji rek dañ fay gànna ci rek te dañuy ñibbi ta li tax suñu borom sakku moy jaamu yalla ak liggey kon ñi ngi leen di ñaax ñu sax ci jaamu yalla te fonku liggéey fonk julli juróom ndax jumaa buñ ko tabaxee julli rek moo tax ñu def ko waaye defuñ ko ngir ngir ngir meuble kon ñu ngi leen di ñaax ñu fonk jumaa ji di ci julli euh, te euh, fonk liggéey kon daal loolu moo doon kàddu yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, mboolem ñi fi teew ñëpp daal kenn desut wax ñëpp teew nañ te yàlla ak sëñ bi rek moo tax ñu teew ñu ngi sant bu baax di gërëm di sant Cheikh Baara it taxawaayam ci dëkk bi euh, ndax li man lépp mi ngi ko ciy def te lépp lu mu ci def ñun loo ko defal kon ñu ngi koy sant bu baax di gërëm. waaw moom de rek sëñ moom léppam sëñ Aliou la moom la nekkaloon te mu sa bëgg dara di ko liggéeyal ba làq ngërëm loolu nag moom moom moom moom daal loolu la moom léppam sëñ Aliou la daal waaw lu mu amit yàlla gannaaw yàlla sëñaal Aliou ko defal

jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Xaadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Xaadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc